bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilah wasalaatu wasalaam ala rasulillah commentaire bi mooy lu ëpp ci tontu yi nga xam ni moom laay jot ci question yi nga xam question bi nga xam ni moom laa posé mooy ana luy wane ni màggal Tuuba ci diine lislaam la bokk tontu bi ci li ma jot a liir liiruma lépp nag commentaire dafa bari lenn rek tontu bi moo ci ëpp mooy chaque at day gën a chaque at magal day gëna a day gëna a neex day gëna bari <laughs> ndax lepp lu fess neex bari rek day wone loolu bax la loolu dagan la Rihanna Jay-Z Beyoncé ñoom Maître Gims kat yu bon yoy ñoo chaque at sañu wote day gëna a day gëna neex day gëna bari yeen seen biir da jallo chaque at day gëna fess la day gëna bari day gëna neex comme loolu moy lay bi yalla à chaque fois ñu bari ci nit ñu ëpp ci nit daf leena a bu fekkee bari way ngeen di ndabo yalla dafa ŋàññi ñu ëpp ci ay nit yalla nee walakin akthara naasi la ya'lamun lu ëpp ci nit ñi xamuñu yalla mu wa in tuti akthar man fil ard yudillunaka an sabilillah so so topé ñu ëpp ci nit ñi dañ lay réeral ci yoonu yàlla dañ réeral ci yoon bu jub mu rek keroog yow qiyaama yonent bi salaa nee na yonente day ñëw ànd ak ña nekk benn mbooloo bu yem yonente day ñëw ànd ñu ko gëm keroog yow yowmal qiyaam mu ànd ak ñetti nit ñaari nit mooy ñu ko gëm mu ne yonente day ñëw ànd ak ñaari nit ñu ko gëm mu ne yonente day ñëw yow yowmal qiyaam ànd ak benn nit bi ko gëm mun a yonente day ñëw keroog yowmal qiyaam du ànd ak kenn kenn gëmu ko ah est-ce que loolu day wane ni comme lu mu nekk nekkul ci dëgg parce que amul mbooloo comme yaa xayti loolu du lay lay preuve lay laaj yàlla nee na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na bu fekkee màggal Tuubaa diina la da ngeen ma indil preuve rek ci alquran ak sunna bu leer ñaareelu lay bi nga xam ne moom laa gis ñaareelu tontu bu ëpp mooy yow Alpha doo <laughs> bu fekkee Fuuta bokkul ci Sénégal ah comme duma sénégalais comme ma xam ni wax ngeen dëgg waaye bu fekkee Fuuta ci Sénégal la bokk foofu mooy sama origine ah ma xam ni comme sénégalais laa gënoo leen ma nekk sénégalais ñetteel bi ñi nga xam ne ñoo xaw a góorgóorlu tuuti nee nañ sant yàlla la te sant yàlla dagan na sante yalla kay wuñ ko sante yalla lu dagan la waaye kaay leen le ma yalla dajolo dem benn bërëb dajolo fa di sante yalla fal la sax ci diina l'islam bu dee ngañaay rek yaronte bi alayhi wasallam mo la upp ay ngañaay téméré ngañaay yu mu am seen sëriñ xaajul am donte seen sëriñ sax yeen ngañaay yi ngeen di wax archive yi waxu ko léegi yonente bi xare badar ahzab hunain ak yeneen xare yu dul jeex ak fatu makkah bi nga xam ne yàlla euh, mujj na koo may kañ la yonent bi salaa sallam dajale saxaaba ne leen kaay leen ngeen santale ma yàlla ci benn ci xare yii nii ci ko yàlla may ndam ñu dajaloo benn bërëb dajaloo fa chaque at di sant yàlla loolu amul beneen mooy yonente bi salaa sallam ba mu faatoo kat ci saxaaba yi moo ne kaay leen ñu la yonente bi yàlla ci ngañaay yi nga xam ni moom la am ci xare yi loolu amul doo leen ko gis doo leen ko indi amul fenn saxul fenn ndax sant yàlla jaamu yàlla la daa mel ni julli nga ne nit ñi kaay leen ngeen jullele ma yàlla kaay leen kaay leen ñu dajaloo fii ngeen jullele ma yàlla loolu fa la am kaay leen ngeen santale ma yàlla dajaloo benn bërëb loolu fa la am loolu du diine lislaam yaa xayti yaa xayti màggal du diine benn famille rek moo ko ngir ay maslaxa waye du diine l'islam bokul ci diine l'islam bu yoboon ya bari bu ya buana neex waye alhamdullilah alhamdulillah nit ñaa udah. de ñun xam nañ ci dara xam nañu ñun saay ñu waxe am na ñuy rocceeku ñu ngi sant yàlla nag defuñu ko nak lu ngir leral deug dong waaw ngi ci borom asmana suuf bima sak wallahi alazim azim tuba bokul ci diine do na fa jele ben tiyaba yalla mo yalla jubal te jubal len wallahu alam